auzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi allazi yusalli ala nabihi almuntaha almusalli salla wa sallama alay illahu fi llaali wa sahbi wa mawala sadi lisaani nawir janaani safi amaani wasid barahi kon mbokk yi nga xamante ni ñu ngi ñuy teewlu ci seen seen Nuuru Daarayni TV ñoo ngi leen di nuyu bu baax ci baatu asalaamualeykum wa rahmatullah di njëkkee ci nuyoo bi ak ziyaare bi saahibul fadila muy sëriñ Muntaxa sunu borom ñuy ñaan mu yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér ba àggale mbooleem naa yi nga xamante ni fas yéene na koo liggéeyal maamam Cheikh Ahmadul Xadim ginnaaw bi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax tey am mbégte ci jëm ji nga xamanteni mom lañu fas yene fatali ak dundam ak bis bi nga xamanteni mom lañu jublu mu nekkon bis bo xamanteni bis la bu reuy ci yoonu murit ndax bis la bi nga xamni mom la Cheikhul khadim wara dajé won ak boromam ginaaw bim ko liggéeyee liggéey bu reuy bi kon bis la bu am am solo ci yoon wi manam bis bobu nak dafa am jëm ju ko wote te jëm joju moy ki serigne touba tan def ko mu doon ab tawam waaw serigne touba moko tan def ko mu dib taawam dégg nga serigne Moussa Ka bang koy wax ca def Mustafa modib taw lu bur tan loolu wessu na ñaw nga xamni ni tànn gim ka tan mu dib taawam yi nga xamanteni ay denkanem la yi nga xamante ni ci ginnaawam la Cheikh Moustapha taxaw loolu ba matale ko jëmm jooju nag di Cheikh Moustapha al Karim mu nekk jëmm joo xam ni jamono toll na fi nga xam ni ndaw yi mel ni ñun war nañuy fàttali ak dundam ngir mën a jariñu ci mbiram ndax jëmm joo xam ni njariñu kese la waaye li ëpp ci jamono day mel ni dañ koo umpale Cheikh Moustapha dinañ koo defee comme ni ñu baaxoo defee képp ku baax ko ñuy waxtaane njëkkee rek ci ak feeñam nga xam ni moom sunu borom mi ngi ñu ko wërsëgale ci bis boo xamante ne bis bu rëy la ci yoonu islaam ndax bis la boo xam ni booy seet atum jullit buy tàmbali bis bi ciy gën a fës bis bi nga xamante ne ci la jullit ñëpp ñenn ñi sax dañuy doog ñi dañuy foog ni at mi ci lay doog a door muy bis bi ni def tam xarit tam xarit bët set mu yow ma asura xam ne moo ci ëpp ay festivité maanaam xew-xew yu bëree bari da cay xew ci ci diine l'islam comme Serigne Saliou nam ko waxtaane woon ca bee weesu ci yow ma asura nga xam du jarta ñu ci dikkaat suñu borom mboolem gën a liñ ci def yépp yonent yim ci jéggal ak mboolem xarbaax yi nga xam suñu borom def na ko ci bis boobu léegi nag sëriñ bi Cheikh Moustapha al bi muy gën a jamono ci bis boobu la tombeel mu yowm Asura bis ci la ci la dikk jamono muy tombe woon ak bisub àjjuma yowm Asura ci atum wasasin ama wasasin ci la gën a jamono mooy 1306 ci gàddaay gi loolu moom moo dëppoog le 17 septembre 17 septembre 1888 ca Daaru Salaam Cheikh Moustapha al Karim ganeek jamonoom daa am xar baax gu ci xew mooy Cheikh Ahmadul Xadim khadim rasulillah sallallahu alayhi wa sallam daa duggoon xalwatullah dugg xalwatu ngir wéet ak boroomam ngir di sàkkoo gis pàkk bii di Touba bi Cheikh Moustapha di gane jamono daa dëppook sëriñ bi sunu borom wan ko pàkk boobu di Touba kon ganeek jamono Cheikh Moustapha momo mo gis gi gis serigne Touba gis pàkkub Touba serigne Touba ci ane boobu la 1888 ñu ñew nek fa serigne ba nek fa ak ñom nek fa ak ñom ba li nga xamantene mom mo war ci ñom yep serigne bi def ko nga xamni Cheikh Moustapha manam mi ngi askano rek ci digënté kokki ak dam. booy seet moom la sëriñ Mokhtar maanaam sëriñ sëriñ Moussa Ka di wax ni sëtu Mokhtar Ndumbe ma koki, kokki ak sëti ak sëti gaydel yet di fonki manam kon ñaar ñooñu ñooy ñaari maamam ginnaaw wet gee nga xam ne moom dootuñu ko ci présenté mooy jur gi ko Seexul Xadiim jur mu nekk way juram way juram wu di dinañ ko fàttali muy soxna Aminata Lo almardiya almardiya garaat la boo xam ni dañ ko koo takkaloon ngir ngërëm gi nga xam te ne sëriñ bi gërëm nag ko sunu borom gërëm ko ci ay jëfam yu rey moo tax ñu ko doon wax Aminataloo almardiya soxna Aminataloo moomu ngir ñu leeral leen ni mu bokkee ci kokki bokk ci ndam di ngeen ko gis ci maanaam càllale gii nga xam te ne fas yéeneen koo leeral ndax soxna Aminata Lo soxna Xari Jóob mooy juróom soxna xarimaam njaga isa mooy wayjuram njaga isa moodu faa xujja mooy wayjuram moodu faa xujja moomu muxtaar ndumbe ma sañcoon kokki mooy juróom sëñ muxtaar ndumbe mooma sëriñ Tuubaa wax na ci ay wax yu yéeme nee na ci ay jamonoom amul ku mu nawlanteel ci suufu Kajoor amul maroom ci ñam jamono teel ci suuful kajoor kon kooku mooy maamu Cheikh Moustapha ginnaaw ba it soxna xari maam moom ba léegi Aminata Diop mooy way juram Aminata Diop yàlla moo ko jur yàlla aale sena ba mu delluwaat ca wetu ndaam ba léegi xari moomu Aminata Diop moo ko jur saa xewar fànn di way juram gis ni kon mbooleem ñu baax ñi nekkoon ci jamono maanaam Cheikh Moustapha ñooñu ay maamam lañu loolu mooy li aju ci wàllu googu bi nga xamante ne nag mën naa dal jàng mbooleem doomu soxna rek ju fi nekk maanaam fa war a jaar lañ ko jaarale Cheikh Moustapha al Karim bi nga xamante ni mën naa dal jàng sëriñ bi da leen a boole moom ak Cheikh Mouhamadou faadal ak sëriñ Omar Omar Mbacké Gelongal kooku doomu sëriñ Mbàkke Kajoor la ñoom ñett la sëriñ Touba jël bisub àllarba yóbbu leen ci këram gii nekk fii di Daaru Rahman mooy fi ñuy wax daaru daaru naar te sëriñ Soy bu dëkk fa tey foofu lañ dalee alxuraan maanaam wax nañ ni sëriñ bi da leen a yóbbu ba foofa ni leen utal leen ay alluwe kenn ku nekk ci ñoom ni leen bismillah tey nag dama bëgg ngeen jublu ci seenub liggéey ndax yéen dama fagu alxuraan def ko muy seenub Nah ndax di ngeen ko nangu ginnaaw sëñ bi kérok loolu leen wax ndax di ngeen ko nangu ñun ko ñu rétan niko waawu waawaaw yow mom lo ñu tànnal ñu nangu lola sëñ bi ne leen de bu ngeen ko defee lépp lu ngeen bëgg ci aduna dina leen ko defal lépp lu ngeen bëgg bu ëllëgé dina leen ko defal daal jël alwaya bind ci lañ daan baaxo di jàngalee rek bind hazza wa jalla ca kaw tambalé bind basin mim daal di wax ñom ñu baamu ba muy ñetti yoon sëriñ bi jàngal leen boppam di wax ñuy wax ba ñu àgg ci suratu yasin bi nga xamante ne àgg nañ suratu yasin foofu la sëriñ bi yemoon ak ñoom sëriñ bi war a jugee foofa dem Mbàkke Baari bi mu demee Mbàkke Baari yoonu géej wi daal di taxaw yoonu géej wi taxaw bi yoonu géej gi taxawee sëriñ bi dem dénk leen maam Thierno Ibrahima Faati ci dénkaane bu siiw ba maam Thierno jël leen jox leen sëñ Abdourahman Lo ngir mu àggale seen àlluwa sëñ Abdourahman moo leen àggaleel ban jàng ba seen àlluwa mat ñu watt alxuraan ginnaaw ba sëñ Abdourahman joxal leen maam Thierno maam Thierno jàngal leen fànne xam-xam mbooleem lu nekkoon fànne xam-xam ci jamono yooya ñu wattu ko maam Thierno ak sëriñ Maam ñooñu ñoo seen wàllu xam-xam def ci ñoom mboolem li nga xamante ni war nañ koo xam kon loolu mooy li nga xamante ni aju ci seenum njàng bi nga xamante ni loolu xew na sëriñ bi fekk mi ngi ca géej ga Cheikh Moustapha Karim nekk jëmm joo xamante ni am xelam daal teeloon na ñaw ubbikum xel maanaam suñu borom wërsëgal wërsëgale ko mu teel a wattu alxuraan ci fukki atam fukki atam lawattu qur'aana nga xam ni ab kaamilam fekk na sëriñ Touba ci biir géej gi ci liggéey bi bind ko yónnee ko sëriñ Touba ci géej gi Serigne Touba gis ko am ci mbégte mu rëy maanaam loolu waxtu nañ ni moo tax ñu ñu ko daan oowe Kamal ndax ay jëfam daa teel a mat Cheikh Moustapha maanaam bi nga xamante ne loolu am na sëriñ bi bi mu ñibbisee ci géej gi dafa takkoowaat ak ñoom. mottali ab yaram ci ñoom fu sëñ bi nekk rek nekk noo fa ak ñoom bi mu ñëwee fépp fu mu daan dem da fa daan yóbbaale sëriñ bi bi mu dikkee nekk fi ab diir dem gànnaar ba mu demee gànnaar dafa toog ab diir maanaam bi nga xamante ne nekk na fa ab diir da leen a woolu ni wool leen ma dongo ya ñu woolu mu Moustapha ak sëñ Fallou ñu dem fekk ko gànnaar bi ñëwee gànnaar sëriñ bi boole leen fa ak ay naar yoo xam ni ñu géeju woon lañ ci fànni xam-xam xam-xam yoo xam te ne tumu woon na ci suñu réew mi amu fi woon daanaka lu mel ni ilmu tajwid lu lu mel ni it maxaarijul xuruuf maanaam xeeti xam-xam yooyu ca gànnaar lañ ci géejoo ban fa jàngee ba seenum njàng àgg ca sëriñ bi wax nañ ne am na bës mu dajale ay téere yu bari jël ko yóbbu leen ci benn kees oo leen moom ak sëñ Fallou ni leen téere yi de li ma ciy bëgg rek mooy xët wu ci njëkk ci seen ndeyjoor ba ci xët wu ci mujj ci seen càmmoñ fexe leen ba araf fu ci nekk rek seen bët na ca dal araf fu ci nekk fexe leen ba seen bët na ca dege na ca tege waaye gaaw gee wattu ak bañ gee fàtte loolu nekkul ci seeni loxo loolu maa ko warlul kon loolu moo taxoon ñoom ñu àgg ci xam-xam foo xam ni ku dul ñoom rek àggu fa woon moo tax sëñ fallu daana wax ni kama joxe ku mu joxewul te joxula kam ma joxoon xam naa ci alxuraan loo xam te ne xamoo ko maanaam sëñ fallu waxtaane sëñ Moustapha mooy waxtaane sëñ Fallou ci lu bari ndax ñoom ñaar ñoo àndoon ci lu bari li sëñ bi doon def ñoom la daan ànd di ko defandoo loolu moo tax maanaam sëñ Fallou daan waxee noona sëñ Moustapha kon loolu ci tënk rek mu nekk wàllu njàngam xam ni sëriñ bi ca gànnaar dafa boole woon di leen jàngal ba noppi di leen tërbiya di leen jàngal ba noppi di leen tërbiya moo tax sëriñ Musaa Ka naan bambaa nga leen tërbiya fii sarsaara ak i jaraariya ni waa lansaara leen foofu jóge foofu ñëw ceyeen jolof sëriñ Tuubaa bi mu ñëwee ceyeen ànd ak donge yi ànd ak njabootam googu ñu ñëw ceyeen Cheikh Karim nekk fa di dang dangi di liggey li seigne bi wax mu ni mu fax moy njëkk a fax nekk ca bëggul mbubu bëggul dal daraja len ne dan seigne bi dem ba ag ci bob bi am ay njañ Cheikh Moustapha Karim fofu ci ci lañ ko doon owe njañ ndax dafa dem ba bob bi seuk lol ba jor melokan wo xamanteni boko boo gisee xam waxna ni bis seigne bi sax moko ol niko ana sa melo yu lo ci jublu mun ko xana Mbàkke bëgg doonub talibé rek bu fas la liggéeyal sëñ ne ko mustapha yow da yoonu yoonu sunna lañ la tanal dañoo bëgg ngay dund ci sunna watal sa bop bi te nga dund ci sunna loolu moy loolu moy samir samir ci loolu la nek wax na ci la Cheikh mustapha dogo wato manam yor melokan Cheikh mustapha Karim da na wax ni chat gi ma top moy liñ may askanale ci seigne touba mom loolu da ko jappé chat ndax li mu bëggoon a liggéeyal Sëñ Tuubaa dëgg nee na bu ko defee sax ñu jàpp ne li mu doon woy juróom moo tax kon moom daan wax ni loolu cat la ci moom waaye nekkul cat xam ni loolu ngeneen la doomi Sëñ waa moom maanaam du neen ndax Cheikh Ahmadul Khadim dafa wax ni ñi nga xamante ne defar na leen kenn ku ci ñoom kenn ku ci ne ci ñoom rek saa la def ci yow deful lu lu ci yow lu tollook 24 heures waaye njabootam ñi nga xamante ne ñoom la ñuy askanal Sëñ Tuubaa ñu di ay doom nee na kenn ku ne def na ci ñom fukki wër ak ñaar nga gis ne kon ñoña mom lanen lañu mom doom señtu ba mom tanef la kon bu ne bani ne la ci mom bëgg gi bëgg señtu ba mom mo waral loola kon loolu mom mo aju ci walu njangam manam bi nga xamanteni ni loolu loolu wéy dañuy dugg rek ci ak gàttal ngir xamna ni dundum dundam Cheikh Moustapha mo gën a waxtane li waral loolu moy lépp loo jàpp ba war ko wax ci moom rek la nga bàyyi moo ëpp waaye ku neex waxtaanale ci wet li war a loolu mooy lépp looy wax ci moom ci lu baax mi nga ca moom lépp loo wax ci lu baax rek mi ngi ci moom kon ñaar yëpp la boole maanaam ñu tënk ko rek dañuy dëkk ci maanaam li nga xamante ni mooy màggal gii nga xam ne moom lañ jublu te ñu koy oowee màggalu daaru xuddoos amaana sax oowin wi mooy nax ñu bari ndax bu ne màggal daaru xuddoos day mel ne waa daaru xuddoos ñoo ko moom jamono sax tolloo na fu naan màggaluk sëriñ seex mel ni sëriñ seex it moo ko moom waaye demewul noona maanaam màggal la goo xam ni màggalu sëñ Tuubaa la màggaluk sëñ Tuubaa la ndax sëñ Tuubaa daa wax ni daan na ñaan suñu boroom naa ko nanga def bis bi gën ci samay bis mu doon bis bi may dajeek yow loolu ñaan na ko ca mooy bu raxmaan ca tarjumaan ja na def bis bi gën ci samay mu nek bis bi may ak yow te bis boba moy bis bobu moy ñaar fukki fan ci wéru tam xarit ci la xewé won ci atum wam sasin nga xamni ni Cheikh Moustapha Karim lola bi mi xew mi ngi fekkon mu nekk Ceyeen Jolof Kayel sax la njëkkee jaar fu bare bare jaar gawan fekk fa maam Cheikh Anta Mam Cheikh Anta manam da bëggoon Cheikh Moustapha gane ko lool daa ko sàkku ci moom waaye loola jotul jotuloon antu ba bés mu Moustapha jaar fa ba fa jaaree bi mu ñëw fekk mu amoon gan nekk ak moom ca kaw mu wàcc ci suuf dajeeg Cheikh Moustapha nu yónteeg moom gunge ganam nga dellu siwaat ñëw ni ko ki ma doon gunge léegi de moom mooy mooy commandant de cercle bu Jurbel ndax nu yónte ngeen Cheikh Moustapha ne ko déedéet dañoo rawmante rek waaye nu yónte woon maam Cheikh Anta ne su ma ko xamoon de dinaa leen nuyoolante waye jallisel Bismillah xana sama ngan ga ma doon sàkku te mu te mu jafé lol tay la ko suñu borom dogal sëñ Moustapha ni ko ah xana ñu jéggul ko bu benen yoon rek ndax tay dañu nekk ci aw yoon dañu nekk ci aw yoon ndax sëñ Moustapha boba ta lu len yëg na mbir mi manam amna lu mu yëg ci yaramam lo xamni mom fo mu gis sëñ Touba ndax sëñ Touba da ko waxon ci diggu tabaski wa ni ko tam xarit fu mu téro na nga si moo tax ba Jolof wax nañ dafa tok ak féré yi ba benn moment mu ni tekk waxtu la kenn ba ci yàgg mu dem génn ci taatu garab ga mu yëkkati ay loxoom wañaar ko ba mu àgg ci digg ginnaawam delloosiwaat ko wax na ni keroog Seex Mustafaa dani am naag jàq lool ñun ko mbàkke la moo la jàqloo mu ne am naag lu wax na lu wax ak man te loola lu mu mës a wax ak man dëgg la te nee na ma bis boo amee ñeent fukki at kenn dootul yëleef ci kaw suuf te man fek seigne touba mi ngi ci jamono moma yelef lolou moma yem lol mag ñene ko loolu day jar mom lolou mom mat na yem motax bi bi dem jaar gawan mënu wona tok mam dafa jaar mam ci anta sakku mu tok ni dal di insisté sax ngir mu tok ngir bëgg mu gané ci ko Seex Mustafaa ni ko danga ma ko jégal ba beneen yoon dal di dal di jubal mam cheikh dal di daw dugg ci biir neeg bi ngir bëgg cheikh mustapha ñew cheikh mustapha dal di retourner dem ci auto ba manam bi mi dem ci auto ba mam cheikh Anta nañ mako dabal dabal leen ma ko maanaam bi nga xamante ni dem nañ ngir dab Cheikh Moustapha maam Cheikh Anta ñëw ne ko ah xanaa da ngaa yaakaar ne Moustapha fii moom boo fi yende doo añ di ka di kafak moom noon ni ko xanaa da yaakaar ne boo fi yende doo añ mun ko ah déedéet fii kay xam naa ne yow moom ku la seet si moom di nga ko jox mu añ maanaam maam Cheikh Anta génne ab baa ak baa ak saakub cere jox ko ko ni ko yóbbaale ko kon boo fi toogoon dinaa togg añ maanaam jële lii nga yóbbaale ko maanaam Cheikh Moustapha wax nañ ni keroog noonu la def daal di jubal aw yoonam dem njaareem fekki fa sëriñ bi bi mu ñëwee njaareem dafa amoon kees goo xamante ne day dendeek sëriñ bi sëñ Tuubaa it danaa def fu mu fi nekk rek dina fexe ba Cheikh Moustapha di ko jege donte duñu dëkk ci benn benn kër waaye du ko sori ngir waxtu bu ko soxlaa rek mu ñëw ci moom. bi nga xamante ni loolu xew na bi mu ñëwee njaareem ndax sëñ Tuubaa dafa am xut bu mujj a def mooy xut bu wam sa sin maanaam xut bu bu siiw la mi ngi ko def bisub samedi. ba am xutba bu woosa simsim wala bisub aljuma bokk bi mu ko defee ci fukki fan ya ak juróom-benn Cheikh Moustapha ñëw fa ci fukki fan ya ak juróom-ñaar maanaam ñu daal di wax Cheikh Moustapha ne ko sëñ bi de bëgg nañ nga nemmi ko bëgg nañ nga nemmi ko ndax ginnaaw bi mu defee xutbaam ba ba léegi de julli si na maanaam dimaas julli na fajar ci biir jàkka ji waaye boobu lañ ko mujj a gis nag te lii daaw ko def ba léegi déggatuñ ci moom génn ko yëngu. te ngaa dem nga nemmiku ko maanaam loolu wax nañ sëñ Modou Lamine jóob moo ko ko wax maanaam sëriñ bi Cheikh Moustapha defee ko noonu ñëw ànd ak sëñ Modou Modou Lamine Diop xam te ne sëñ Modou Lamine Diop sëñ Tuubaa da koo ni ko fu ma nekk man nga ma faa fekk moo taxoon Cheikh Moustapha jiital ko ni ko nañ dem daal di laajte doom ba maanaam ki yor caabi kees gi mu nekk ñu woolu ko mu ñëw maanaam sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Cheikh Fall Takko moom moo yoroon doom boobu mooy caabi jooju maanaam bi nga xamante ni ubbi na sëñ Modou Lamine it li ko sëñ Tuubaa may may fu mu fi egg fu mu fi nekk mu fekk ko fa am na ci loo xamante ni doom rek moo fa mën a àgg ci juróom bi mu àggee foofu mu ne Cheikh Moustapha bismillah demal Cheikh Moustapha ci la tàbbee ci néeg ba bi mu dikkee fekk sëriñ bi ci anam woowa mu xam ni li suñu borom diggee woon agsi na ndax li mu wax ni bépp bakket rek boo xamante ni day day dund bés dina ñëw mu faatu mu jàpp ni bis booba moo agsi tey sa Moustapha ànd akuk dal ànd akuk mat mel ni dara xewul bi nga xamante ni loolu xew na mu génn wax ak ñi nga xamante ne moom la bàyyi ci bunt bi ñam fa nekkoon ñëpp mu leen bis bi suñ borom digge woon day agsi na tey daal di def taxawaay ba ca war yëpp rek oolu ñam war a wool ni wool oolu leen ma sëriñ Basiiru sëñ Basiru it maam daawul sori foofa ñu woolu sëñ Basiru mu ñëw maanaam tandaxiyu sëñ Tuubaa it daa sàkk woon ci bu bu fi bàyyikoo mu bokk ci ñi koy taxaw ñu woolu ko mu ñëw sëñ moo Lamin Jóob ak euh, sëñ Balla Coro mi rakk ci sëriñ bi ci Zahir ñooñu Cheikh Moustapha woolu leen ñu ñëw biñ ñëwee Cheikh Moustapha daal di woolu commandant commandant de cercle de Diourbel jamono jooju en mo pal la tudd bi commandant bi dikkee maanaam dafa yónnee sax ndaw ci moom walla boog sëñ Balla Coro bi mu ñëwee mook Cheikh Moustapha ñoo ànd dugg ci oto bi dem kër commanda ndax boobu guddi na timis la maanaam fukki fan ak juróom benn fukki fan ak juróom ñeent ci weeru mu xarram la woon guddi googu ndax Cheikh Moustapha mi ngi fa ñëw ginnaaw timis kon guddik ñaar fukkeelu fan moom moo nekk màggal gi kon samedi bii ñu jëm mooy fukk guddik ñaar fukkeel maanaam ci la ci bi wàcc ci Zahir maanaam bis boobu Cheikh Moustapha ànd ak sëñ Balla Coro ñu dem bureau commandant fekk nañ mu wàcc ñu fekk ko këram bi demee ci këram ñu wax ko xibaar bi commandant dugg ci oto bi ànd ak ñoom ndax loolu mën na koo gëm li tax mënta gëm loolu mooy ñoom diirub juróom-ñetti at yu manqué aslëf nekk nañoo ak sëriñ bi musuñoo gis sëriñ bi maanaam mundurul leen kuy kuy faatu teg nañ ko natt bu nekk gas nañ ba mu xóot tàbbal ci sëriñ bi suul sëriñ bi ànd ko roob boole kooki nag boole kooki gaynde dugal ko ci pour nga xam ni wax nañ ubbi nañ cin sax dugal ci sëriñ bi di ko jéem a togg xeeti mettal gu nekk ñu def ko ko sëriñ bi bàyyi koo fi moo tax commandant bi mënta gëm loolu mu dugg ci oto ba ànd ak ñoom ooyu benn médecin ngir mu ñëw def constat bi ndax it moom daa bëgg leer nañ ci preuve leer nañ ba ba mu xam ni moom sëriñ bi faatu na ngir mu mën koo wax ay kilifaam gouverneur ndax mënta ñëw rek wax ko ko noonu gouverneur gëm ko ndax xam nañ Sëñ Tuubaa ñoom dañoo dem ba jàppoon ne moom Sëñ Tuubaa daawul faatu moom te moo ne wax nañ dëgg moo ko njëkk a waxal boppam waaye ci zaahir moom am na bi nga xamante ne loolu xew na commandant bi bi mu ñëwee médecin bi dem def constat daal di ñëw confirmer ko ni ko waaw effectivement sëriñ bi jóge na jóge na fi mu ne Cheikh Moustapha lii de dinaa ko wax sama sama kilifa waaye yaa may wax ngir ma wax ko ko maanaam discours indirect lay def du man maa ñëw rek ni ko faatu na dama ko doomam Moustapha nee na woy juróom faatu na maanaam médecin bi bind rapport boobu ñu yónnee ko par télégramme gouverneur noonu la demee